ay ca ngeen jëf mbokki internet yi nga xam ne yéen ay bàyyi xel seen bii di Dakar live ak Fekke TV ñi ngi amaan mbégte ak contentement bu baax a baax di jàkkaarloo waat ak yéen rawatina tey diwaan bi nga xam ne ci lañ koy defee. bu ma leen waxee loolu ba léegi génnaguma Pikine maa ngi Pikine moo ko waxee nag ci mafia bi bu ko waxee ñoom Pikine nga xam ne boo tuddee pikin rek <laughs> yaakaar naa ne jox ko nuyoo bi na ko partagé gaa yëpp partagé ko ñoom Ama ak ñoom Abdou Diouf ak gaa yëpp di nuyu di bëggee gaa yu baree baree bari maa ngi di di nuyu kenn koo xam te ni nag ubbeektelu émission bi moom laay nuyoo muy Serigne Samba Ndour ca Touba nee naa la dalay ñaanal di la ñaagal ko koy Serigne Samba Ndour borom Touba jox la paas ah te na ko wax ne jox la paas man moom daf may ñaagal jërëjëf waaye nag damaa toog ak kenn koo xam te ni champion la ci biir champion yi ndax kër ba tey kër Fallaye la génne ndax kër Fallaye daa bari ay ndaanaan muy Pokola Balde nee nañu Fallaye Balde yi maamam Pokola nuyu naa la di la ziar. waaw baax a àdduna waaw di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba waaw. kooku dégg naa asa avance ak Talfa da ngaa daw. kon non loolu man dawuma de. lan moo tax jëloo combat bi. combat loolu dara rek dawuma. dégg naa fay nañ kase boobu mës ta fayee kenn fayu ma loo xam ne nii mooy loolu. mais xam làmb yi làmb yi moo kiiwul quoi moo jotul kii. xam lu ma la mën di xamal daal làmb yi daal mama jàpp na dafa ñoragul pour man ak moom ñu bëri rek waaw waaw ba léegi génnul ndax dugg na Pikine waaw mais daa ni dër bi ngeen di bëri Pikine ak Parcelles lan tax mu nekk dër bi xew rek xew rek loolu kase waaw am nga combat am naa combat yaa kan serpent bu Grand Médine eh, fi nga dugg diisati na de waaw man de loolu laa bëgg dugg fu diis rek ndaga musul daanu insha allahu rabbi si weeru màggal gi maa ngi koy ñaanal maa ngi ñaan yàlla may ma ndam gaaw si moom si barki sëñ Fallou Mbacke si weeru màggal gi. ki nga jël diis na de. xaa dégg ma si weeru màggal gi maa ngi ñaan yàlla may ma ndam si kawam. ndax xam nga ne serpent mosul laal suuf. loolu laa lay laal suuf loolu dara loolu du cëës serpent du cëës kooku du problème de ñu làmb leneen ak leneen lañ si wax mais kooku du problème waaw loolu. amaat combat boo xam te ni combat espoir la. ndax buñ ko waxee fi ma jëkk a duggee Boy Niang Balla Gaye Guédiawaye Pikine. waaye di ñaanal Boy Niang yàlla may ko ndam. ay doom Pikine lañ lañ dëkk. waaye Boy Niang ngay ñaanal wala Balla Gaye. Boy Niang la yàlla may ko ndam. wala da maa bëgg a dugal. Boy Niang la ñuy ñaanal yàlla may ko ndam. làqatuñu ay doom pikin lañ deret bi mooy daw. waaw. ci 200 pour cent. waaye yow man 300 bi laa bokk. dañoo xam ne ku xam diggante Fallaye Balde ak Double Less xam diggante Ama Balde ak Balla Gaye moo waraloon mu jaaxaloon. man jarbaat laa ñoom ñoo bokk mais bokk bu ñu bokk lépp mais ñun drapeau la ñuy drapeau bi ñun la ñuy sigal ñun ay doom Pikine nekkuñu ay sëtu Fallaye kese lañ Pikine la ñuy man boog man Pokola nekkuma sëtu Fallaye kase Pikine laay defendre Pikine moo ma ñor fi ma dëkk moo ma ñor fii ay réel génn góoree fi ne man fii laay xam xawma feneen. mun naa toog atum yàlla laa lay wax nii xanaa làmb tëj moo may sax awma beneen soxla sama lépp fii laa ko lijjantee Pikine du ma génn fenn duma dem fenn du ma fréquenté feneen fu dul Pikine waaw mun naa génn nag dañ maa gis ñoom sax dañ may gëj a gis yaakaar ne fu nekk laa nekk te maa ngi fii du ma génn feneen fu dul fii ndax fii laa gëm fii laa juddoo fii laa yaroo. ne mooy sama lépp xam nga dégg mooy sama lépp. pour nga comprendre ñun gëmuñu leneen lu dul dëkk bi lañ gëm di ñaanal Boy Niang yàlla may ko ndam te da koy daan jël bu gaaw Ama Baldé ñaanal ko contre moo Gris Bordeaux yàlla may ko ndam lu gaaw. Ama day daan Balla ga jël bu gaaw. Ama day daan kan Boy Niang. day daan Boy Niang day daan Balla daan jël bu gaaw vite fait la une minute trente secondes. Gris Bordeaux jàpp. foo teg lool foo foo teg lool. kan. foo teg lool xanaa gisoo li mu bëree Gris Bordeaux. nu mu bëree Gris Bordeaux na ko bëree Boy Niang. mu Pikine lañ gëm de gëmuñu leneen lu dul Pikine. gërëm li bëree Gris Bordeaux ko bëree Boy Niang ñaar. loolu foofu rek laa la gëm de ñun Pikine rek lañ gëm Pikine lañ gëm Ama day daan. mais voilà Ama Gris Bordeaux nag yéen Ama ak yéen a ngi ay waay Ama am na combat waay. Gris Bordeaux. Gris laa ñaan rek moom bu taxawee dëggal boppam di suuf gaar koy for de day senkom de bu taxawee dëggal boppam day senkom de. Ama day door Gris Bordeaux mu daanu. bu taxawee dëggal boppam senkom laa la wax bu li muy def. bu taxawee dëggal boppam. Gris déggoo li la ko waa Medina Dakar ak amateur rek ñëpp moom nee nañ Gris bu daanoo day bàyyi. Ama ko gën a dëkk Medina Ama doomu Medina la. Ama doomu Ama doomu Medina la moo gën a dëkk lébu la si yaay sama maam lébu la Daba Ndiaye ñun ay lébu la ñun suñ kër gu mag mu ngi Medina ñun ay lébu la ñu ngi ay international doomu Medina lañ déggoo ma de Ndakaaru ñoo ko moom. xanaa déggoo ñu ne la double nationalité. lan tax Ama gis nga Gris Bordeaux dóor yi mu dóor Balla Gaye gis nga ko wala gisoo. Ama nga wax de Fallaye baayam de Ama nga wax de day entraîné ñëw la jékki-jékki màgg de daa daj lu metti entraîné di màggee normal. toog Ama 2018 bi muy Papa Sow la gëj a bëre ba léegi Ama. la mujjee nee nañ. la bëre. amul benn wax boo xam ne doon na ko wax ba may nekk xale di ko bàyyi xel mu ne mbëru faas du ma mës a daan te maa ngi koy waaj a gëm li ngay wax poko la yàlla ba may neex xale dama doon toog muy waxtaan di ko wax ma koy toog di ko dégg maa mbëru faas du ma daan ndax daam moo faas ak sama maam da leen doon entraîné ñoom waa faas moom fan waa kay sama maam da leen doon entraîné sama maam béygay di ko nuyu maanaam di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana yàlla xare ko àjjana bu ba yàlla xare ko àjjana yokk ay leeram dama ne guddi yu ñu toll guddi yu ñu toll guddi yu ñu toll loolu démb la pour Ama li mu moom nii dem la kenn duñu tee dem. xuus jàll mais Gris Bordeaux gisoo lim bëri ak Balla Gaye non Gris Bordeaux loolu du dara si ñun. Gris dégg xeex ci mbëri. du dara bu see si ñun di nga xam ne ñun suñu papa am na lu mu ñu defal am na lu mu ñu bàyyi. foofu laay yàq. la Pikine lépp ci Pikine. waa seetaan. yàlla ñëw na. ndeysaan gis nga poko poko mais mais lii lépp solidarité bi am Pikine solidarité moo tax mu ne la yàlla ñëw na wax ju dégg wax ju dégg maanaam wax ju neex da nga dax neex a dégg ndax ñun dañ war a ñoo toog sax six mois bëriwuñu waxuma laa ñu toog quatre ans ñëw mu ne yàlla ñëw na mais yàlla ko yàlla mottali rek kon da ngeen a yàkkamti woon bëri arène nationale bi ñun lay muslu barki yàlla Ama Gris Bordeaux gars yi dañuy fanaan yi danga gis ko fanaan stade ba ñun daa am ñun ñun roi des dañ koy triplé. mais mais mais mais mais mais Gris ñëpp xam nañ ne moo dàq xeex ci mbër yi d' accord nga loolu wala d' accord. waay moo dàq xeex. mais kee moo ëpp force de frappe. kan ama waaw nañ ko nangu ama Baldé dóor motloo mu daan dóor Gris Bordeaux mu daanu ama Baldé. mu dóor nag nag taxaw dëggal boppam kay. comme ni def ak Balla taxaw ak Balla Gaye xeex moom attaqué Balla Gaye taxaw. koor ak koor ak bu ko defee gars yi for ko suuf. Gris Bordeaux mbër su koo dóor mu daanu xam nga. dama mbër musu koo dóor mu daan bu tëggaleeg ama ama bu taxee dëggal boppam ama dóor ko mu senkom ama fii lay waaje wala day dem Europe ça dépasse moom rek fu mu mënti nekk ñun suñu xel day dal ndax dañ koo tàggat si entraînement entraînement rek la xam fu mu mënti nekk suñ xel day dal dañ koo tàggat si entraînement. mais mais ñu gis ne Ama waaj ak Modou Lo ba bi des lu mat ay 2 semaines 3 semaines combat bi yàqu en tant que Pikine ñoom Pikine mobilisé ak li ngeen mobilisé. bul yàq émission bi non bul yàq émission bi waxi Modou Lo ñu ko wax ñun taluñu Modou du Thiès na dem. mais daa jël loo xam te ni yéen Ama Balde moo ne da koo soxla muy titre roi léegi moom na lekk roi bi ñun bëgg ñoo bëreetee moom. beneen roi loolu du roi boo xam ne na sant corona. moom dafa war a sant corona. roi boo xam ne da nga koy cons ba léegi. maa xalaat Sénégal lay la Sénégal lay la. Sénégal lay la quoi. ndax Sénégal lay la. Sénégal lay rek la. jarul wax si moom bul wax wax si ñoom ñun dañuy wax suñ combat ak suñ biir dëkk ñu waxtaan am loo xam ne nii moo ñu jëmale kanam mais ñun Modou amul loo xam ne dañ koy wax si moom mais dafa jëloon combat bi ama waaj ñoom Pikine waaj ñoom Abdou Diouf waaj ñeneen ak ñeneen waaj ba combat bi des ay deux semaines trois semaines gisatuñu combat bi da yàqu Baye Fall Modou Lo na nekk si jàmmam yàlla ko yàlla defaral jàmm kon ama dootul bëre teg ma bëgg ñëw bëre moom ndax da loo xam ne nii xale ndaw yi sax xam nañ ñu demee kon bëgg ñëw bëre ak moom quoi nañ waxante dëgg bëreeg Bombardier bëreeg Gris Bordeaux moo ñu gënal bëreeg bëreeg Lac de Guiers sax moo ñu gënal ñu ànd dañuy bëreeg Modou Lo Modou Lo ñun ñoo doyal si ay mbiram amuñu taam dawul suñu yaram dafa day day peqoor làmb dawul suñu yaram kooku dawul suñu yaram déggoo ma kooku dawul suñu yaram ñun ñun dawul suñu yaram ñun combat aw suñu yoon nekk suñu suñu bees dàq bi paquet bu bees capal caaw bi ñun boobu la ñuy wax ñun ay waxi Modou bu ñu ko wax ndax luñ gën a metti moo ñu ko teg bawal gars yi dañoo am caaw loolu daa mel ni moo bu bees la Pikine loolooy lan capal na cap waaw maintenant ah, eh, la jiiri waaw caaw capal rek caaw caaw na cap la caaw mais ba pare Ama li ma déggaat ci biir ñu ne Ama dafa jëlaat ay yeneen avance ay bombardier ay yooyu bàyyi bañ ñu kenn. ama daa tegale ni Balla Gaye def la def. teguñu kenn teguñu ñun ama moo nekk mbër boo xam ne nii dama leen wax ci loo xam ne nii ñun ama man sax dafa nekk sam nijaay boo xam ne nii man damaa jël si moom royukaay royukaay laa jël si moom dafa boot fami doon benn loxo toog quatre ans bëriwul te amul kuy taxaw fii nag booy bi day taxaw tàllal la loxoom ne la defal ma lii du fëgg biiro du taxaw fenn te lépp lu mu am da koy lijjanti musul mu toog na quatre ans bëriwul te ko mu dem fenn maral nit taatam taxul mu dem fenn dunguru nit lépp lu mu am moo ko amal boppam moo dafa nekk ni yaay boo xam ne damay jël si moom leçon ndax nga toog quatre ans bëriwoo maa ngi koy ñaanal jàmm rek man jàmm man déggoo ma de moom man moom buy nekk ci jàmm rek ñun man damay nekk si jàmm. mais contre Ama Gris xalaat ngeen combat bu gaaw ci Ama. Ama day daan Gris ba roo jël bu gaaw. da ngay daan jël bu gaaw. ah combat boobu man ah. làmb daal ah. waay parcours yi bokkul waay parcours yi bokkuñu waay as bi dafa bari diggante as bi ni ñu ko magee dafa bari waaye Gris nee moom def na si carrière vingt ans xaw ma bi dafa bëri ni ñu ko magee dafa bëri Gris moromu ama la la magu ama la maaseel. Paate Balde moo Paate Balde bëri nañ ba pat. waaw dafa bëri. diggante bi mu ko magee dafa bëri nag. waaw mel ni koor la ak Zil Balde. kan giree ko àtte woon de. Ousa Sow Zil bii dina leer bii dina leer. ñun yàgg nañ ñu def lor la woon. nekkul si papa booy jinne kasal lañ ñu ko yàgg a defee de. Zil Balde wër na fi ndomba Ousa Sow Gris duggu dugg. Korog Soxob Balde war na fi ndomba papa booy jinne benn xaritam dugg. ñun yàgg nañ def loolu. waa mais mais mais papa na ni mu mel ak Ama Balde ak cër bi nga xam ne moom la joxoon ak moom Ama ko Ama yar. mu pop Jacob di bëreeg moom loolu daf ko metti ba pare ak Ama ni mu def nee na Ama xeer la yor jàpp bu baayam bi di ko dóor di ko dóor daf ko mere ko mere am euh, affaire lamb affaire de lamb la man mii sax stade bi jékki-jékki naa jeunes yi fu ma tourné ñu topp ma ma jékki-jékki tàkk seen kaw mais man kaw ma leen respecté fu ma leen dara dama leen ne bi da ngeen may comprendre sama mag mooy bëree sama deret moo yëngu comme ndëgam Ama Balde moo moo mooy bàyyi Jacob Balde c'est normal ndax waa jooju daw dugg si géew gi rëcc leen bu yoroon béjjën ñoo fekk soxot jam ko kon làmb ji lu fi mën di xew kooku la làmb ji korog bu fa kirim amoon lu fa mënoon di aw waajooj la kooku ànd ak papa lu fi mën di xew moom la ñun papa booy jine bu waroon soxob ba di ko dóor ba ba mu kii ñun duñ dugg te du ko mës a wër ndomba ñun duñ yàq làmb ñun benn affaire laa bëgg a xam gis nga ñun pikin ñun gars yi dañ ñoo ñun dañ ñoo kii dañ ñoo kii rek ñun dañ mais ñun duñ yàq làmb ñun fekkoon nekk Papa moo signé woon waa dal ko ci ama. loolu duñ ko ko toppee ndax gémmin guy naaj du wax jàmm. waaw gémmin guy naaj. gémmin guy naaj doo wax jàmm. gémmin guy naaj doo wax jàmm loolu loolu jàppee wuñ ko ko dañ koy comprendre rek ne ko bu ëllëgatee nag fu mu jaar ñun bu mu jëlati écrit fallaay. arrêté tamit wax ji dem liggéey xam ne. fii àdduna yàlla kasee fi nekk comme lu muy wax yàlla kasee fi nekk yàlla kasee fi nekk kon moom na dem rek entraîné waat tegawaat fi comme tam bàyyi waa écrit Fallaye ak waa kër Fallaye ñun damaa bëgg a leeral waa askanu Sénégal ñun foowu ñëwuñu làmb bu njëkk ba dañ ko doon foowee mais foowatuñu làmb ñun dañuy entraîné si bakkan lañ koy teg dañuy entraîné dañuy entraîné loolu par heure duñ tàggat barki alxuraanu karim ñun duñ vacances sax am leen ay vacances ak saison bi tëj na ak ndax ku ñu ku ñuy àndal yabu ku ku ñuy entraîné dañ koo ñemewul. ñun ñemewuñ ko ñemewuñ ko yabuñu ko ñeme dee dañuy entraîné loo si biir diini da lay entraîné loo entraîné loo entraîné loo ba nga jékki-jékki di bàyyi mu am lu mu la wax si kàddu xale bu ndaw yow xanaa bëggoo ma yóbbu yow nga ne yaa may jëndal kër mu xool ma man dama ne ko man maa lay jëndal oto deuxième oto xam nga amaa ah, ko jox oto ma ko man maa ne ko deuxième oto man maa la koy jëndal soxam ne ko maa lay tabaxal kër Babacar Balde na ko maa lay yóbbu Màkka ah. léegi saa bu ñu tànkee si diini affaire yi commencé metti bu ñu waxee loolu la suñu yaram day daw maanaam dañuy dañuy xaftal quoi daam leneen loo xam ne da def si ñun moo tax man ne ñun nekk ni nijaay moo ñu yor dégg nga bébé guy gi sorti yi nga xam ne moom la def dal Jacob nee na Jacob na ñëw ñu bëree ragal la tapet la foofu Pokola fay mbër te daf laa daan ba pare ne Pokola mooy mbër non xam nga kooku tey jii man lu ma ko mën a jàppee xam nga moom lamb la mais Sokhob bu bëreeg Bébé Gouy Gui fan la koy yóbbu bàyyi nañu waxante dëgg Bébé Gouy Gui man ak moom ay morom lañ Sokhob ñaata victoire la Sokhob mu ngi bëgg a jeexal ay moromam waaw Bébé Gouy Gui dëgg la mais Sokhob bu daanee moog Bébé Gouy Gui buñ bëree fan la ko mën a yóbbu fan la mën a nañu waxante dëgg la nag comme la xam nga daan bàyyi lamb la la daan yow mais mi nekkul nekkul da maa daan rek nekkul da ngaa daan pokolaa rek nekkul da ngaa war a daan pokolaa rek war a bëree kii Sokhob dafa bëre combat jànq yi metti combat jànq yi met la bëri kon dafa jot instant bi ay ñoom Jokal ay ñoom Kewel ay ñoom Tidiane Faye dañ ko war a may chance mu bëree dañ ko war a may chance bu bëree. dégg naa ñu ngi dox combat am ak man wax dëgg yàlla formation weewu bay sama nijaay Sil Bale nee na Thiat Daouda Fall ñun ñuy dëkk si kër yi kenn du bëreeg moom ndax maam papaam ak sama maam ñoo doon ànd. doon daje géeju géeju waa ji entraîné. doon bëre famille ah. Double Less doon bëre fa taw daaw. for damaa force weewu béy Zil Balde wax ma loolu. man damaa. ak ak ak ak ak kii ñoom. weewu béy laa force Zil wax ma loolu ne ma caab Daaru Fall moom bu seen bopp. kenn kenn du ci bëre ak moom ndax papaam ak baaba yooloo man su weewu béy sama nijaay damaa taxaw mu wax ma te man sama nijaay lu coow li di bëri bëri si kër gi. man néew ma ne maay xaritam de mais man la si gën a miinanteel man loolu laa moom la ma wax si weewu béy moo tax xaw ma leen lu ma si sori waaw looy ñu jël Pikine. waaw li ma tàggatoo maanaam di waajal rek ndëgam am naa combat moom di waajal noox waa boppi coor ak Pikine gi yëpp daal waa curuba eñeey waa kàkku waa raas Pikine bi yëpp xar yaa ma gën a xam ma fi ginnaaw raay bi ñoom ñëpp ñu leen di woo daal maanaam ñu ngi woo diaspora bi yëpp si si làmb ji di nuyu nag sama mbokku bool bool bu baax a baax a baax a baax bool bool bool pire diir maa ngi nuyu sama mbokku bool bool bi sama bool bool la pak lambaay bii la nekkoon di nuy ñëpp sama mbokku bool bool waa Touba di nuy ñëpp di nuyu ñëpp séeréel si waaw maa ngi nuyu ñëpp daal di ñuy daal Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm daal ku luxum daal waaw Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm Ama Baldé di ko ñaanal yàlla may ko ndam booy ñaa yàlla may ko ndam ama am combat yàlla may ko ndam soq dugub yàlla may ko ndam si contre moom Marley paa bi di ko ñaanal yàlla may ko booy Pikine yëpp maa leen ñaanal képp ku si am combat yàlla la yàlla may ndam. jërëjëf pour cent waa bi. yàlla si yàlla def jàmm ndax bañ ko créé ba léegi jàmm doo nga siy xew. waaw kon di ñaanal rek ñëpp di wax nag gars nag. daa am benn message bu may laasé. booy mbëri lan moo tax ku jug na jox leen ma maalaw seeraas. ku jug ne jox leen ma maalaw seeraas. mo jobu yoof la mujjee daan. maalaw Abu Ndiaye sax duñ koy laaj. maalaw waxu Abu Ndiaye mun daan maalaw seeraas. na noppal boppam munut daan maalaw seeraas. Abou Ndiassé nag siiw Abou Ndiassé nag gars yi xam daa munut daan maalaw seeraas sax xam nga lan mooy wax ji loolu mën a daal qualifié 2 moom maalaw seeraas na ñëw ñu bëree. loolu maa ngi koy ñaan Fallou Ndiaye apartage mu taxawal combat boobu. maalaw seeraas qualifié 2. yéen da ngeen defale qualifié nooy neex la ba. maalaw seeraas qualifié 2 lañ wax leen lañ bëgg a bëree ndax am mooy loolu maalaw seeraas dafa war a jël benn revanche jugal ma wax la mu ngi nii jëmm ji. moo qualifié 2 daa am fu ñu jaar jël bala junior mu ngi nii loolu la. dégg war a. moo yoreel bor bi. Koulibaly Deux dañoo yoreel bor. dañoo daan na ñëw bëreeg Malaw Seras moo gën. Malaw Seras may ko sens. na ñëw bëreeg Malaw Seras. dafa bëreeg jëmm ji kon dafa war mën a ñëw bëreen Malaw Seras mooy loolu. Fallou Ndiaye laaj laata message na tëgg combat boobu. barki yàlla maalaw booy mbër bu jug naa na jox leen ma maalaw. waaw loolooy problème bi de maalaw est du lim gëj a bëree tax booy di ko. nekkul du gëj a bëree de yaram beleen di ndax damay ak am doole loolu léegi ma metti lu si ne rungum daapante moom di nga xam lépp dëgg la wasalaam. acca Pikine ñëwal toog